del déglu del xool mbokk internet Feeling Dakar ñu ñëw ak yéen ba léegi ci dossier bi nga xam ne moo ñeel ki di président Ousmane Sonko ak xale bu jigéen bi nga xam ne moo di Adji Sarr mu jéeñ ko li nga xam ne moo di viol ci dossier boobu nag dinañ ci am nañ ci ki nga xam ne moo di Ahmed Aydara def na ci ay révélation yu doy waar Ahmed Aydara di ñu leeral que ni xale bu jigéen boobu mis à part masseuse bi nga xam ne moom la doon def te amu ci diplôme euh, moom aussi dafa nekkoon di def li nga xam ne moo di couture ci benn salon de couture et ki nga xam ne ni nag moom mooy euh, patronam di Khady Ndiaye mësul yëg lu ni mel et nag salon de couture boobu fa demaan toog dafay xamal nit ñi que moom mooy maase ki nga xam ne moo di président Sonko te foofu am na benn homme d'état bu mag boo xam ne jarbaatam foofu lay nekk ah loolu nag nekk na ay mbir yu doy waar waaye di ngeen déglu ci kanam Ahmed Aidara révélation yi nga xam ne moom la ci def jëmale ko ci mbir mi nga xam ne moo ñeel kii di Sonko ak aji Sarr dina def te aussi ay révélation génnee li nga xam ne moo di dossier médical bi nga xam ne euh, bi ñuy saytu li nga xam ne médecin bi nga xam ne moo saytu woon moo yor euh, mbir moomu noonu résultat yi mu génnee ci mbir moomu noonu Ahmed Aidara aussi dina ko dévoiler mbokk internet Feeling Dakar di leen fàttali ne yéen ci seen biir chaîne te su soobee yàlla lépp loo xam ne rek mbir la lu yees ci mbir mi dossier bi di aji Sarr ak Sonko dinañ leen ko indil jërë ngeen jëf ngeen teewlu Ahmed Aidara. masseuse la day maase. Mhm. mais nee nañ fi mu nekkoon di fa liggéey. Mhm. daa nëbboon patron ne amoon na beneen liggéey. ndax aji ndekete nee nañu. da doon tamit dafa nekk ci salon de couture. di ñëw. salon de couture bi. ku tudd madame Talla moom. ah bon. liggéey. salon ba nekk wetu kër Maodo Malick Mbaye ana moom. coalition Bokk Yaakaar. Hmm? xale bi nag bu fi ñëwaan foofu lay toog naan leen maay maase Ousmane Sonko di waxtaan di waxtaan. Hmm. foofu nag la doomu jarbaat la neveu mhm. Maodo Malick Mbaye di ko déggee mhm. ba ñu ne yéegee ko seen waa kër mhm. bonjour les dégâts dégg loolu. bu baax ah, yow. damay ñëw ci kër docteur bi. mais fi mbir mi commencé. nekk noyeetu ma sax. donc moom bokkut ak salon de massage am na beneen liggéey.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 réquisition bi numéro 91 2 bu section de recherche 3 février 2021 laaj mooy bay xel waaw yow laaj damaa noo yetti réew mi kenn nooyul nag maa noo ah. na waaw ba muy ñibbi mbir mi dafa guddi ba muy génn. guddi daa guddi waaw. mais nee nañ bi Ousmane ñëwee moom. làkk na commencé bi séeréer. xale bu jigéen bi waaw. mooy personne mais c'est toujours te kenn waraguma ko. muy deux heures ba fa nekkoon. nekkoon saal ba deux nekko nekkoon fexeel ba kii. bu ko wan yow xam nga ko. xam nga am na ñoo xam ne bu ñu gisee Mansour Diop ne eh, Mansour. Eh. fekk Mansour doon sàkkeetu foog ne kii xamuma. waaw soo tëbee. xëy na li nga bëgg def yàqu mu ni ko xam nga li ma la mm-hmm. mu ni ko bu ko wan mukk xam nga ko dégg nga loolu. yaa ngi teewlu bu baax. problème yaa ngay démarrer nag de. Euh, dafa am problème. non non non non non non non reste calme rek. problème yaa ngay démarrer nag de. refi rek. Mm-hmm. nandite. bata anday uh-huh. àndaanoo yow nekkal naa diti kii bu mu xam ne yow xam nga ko xam merci non je t'adore barke rasulillahi dégg nga loolu ba muy ñibbi nag nee nañ patronam bi uh-huh. nee ko guddi gi foo jëm mu ne ko man benn jakarta uh-huh. moo may jël benn jakarta moo muy jël seet si mu génn patronam bi topp ay tànkam. ana deuxième masse masse bi booba. fa la ko bàyyi génn. ah moom mu njëkk génn bàyyi fa. personne bi kenn tuddul ba léegi. bi mu demee nag patronam bi génn. Mhm. topp gis benn kat kat bu ñuul taxaw bu jakarta. Mhm. Mhm. te loolu après supposé viol bi la. guddi googu la. te <laughs> waxul ma waxul patron bi dara. <laughs> déedéet. dégg loolu alaaj bu baax xale boobu taxaw fa nag <laughs> jël si ko mooy Sidi mu dem moom moom sël mu yóbbu bàyyi fa ka mu nekk na doon ca saal ba ci kanamu gendarme yi Sidi Ahmed nee nañ ko yow guddi googu noo def ba yegg fa waaw ak couvre-feu mu benn médecin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 waaye kër docteur. Mhm. ak gendarmerie. Mhm. yenn ci borom xam-xam nee nañ. Mhm. na leen réew mi yëpp félicité. kër docteur. defuñu luy nuroog tapale. Mm. attekatu gendarmerie. section de recherche. defuñu luy nuroog tapale. xamuñu ko bu dee complot daa am it ñooñu dañ leen ci génne. xamuñu ko. déggoo ma de. waaw maa ngi lay dégg bu baax lan la.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 test ADN. kon mu mel ni mëni wu feeñu fa. feeñu fa. laaj na laaj nga déglu ñoo de waaye yow fi mu ne kii est-ce que abuma yeneen yeneen nopp yeneen xel yu lay déglu sax. dégg nga loolu Siré. Mhm. nopp nag dé du déglu de. waaye li ñu ne nopp du déglu. ñu ne au contraire. Mhm. au contraire. Mhm. le médecin dit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 absence totale de lésions déchirure imméniale ah. ancienne la ñu gis foofu noonu. waaw. Hmm? ndaw gone gi. dem na bu yàlla. dem na ca am na ko ne ma silence total am ci mbedd. si no kenn waxaatul. maa ngi soo studio ni mu nekk de. <laughs> eh aju du fëgg de ni nga daan def nii. aj woo ko. nga loolu. Pape Beye tey ñun taluñu anniversaire xaaral tuuti. non non tey amul tey amul dédicace amul. anniversaire amul anniversaire. médecin bi. Alpha Séni Gaye la tudd gynécologue la. mooy ko xool xale bi. merci. Mm-hmm. suma <laughs> eh. alaaji ne wuy ma. wala yaay. ah ma defar waaw jëlee sama kàttan gi sa oto bi may naa la ko sa addiya maam. li mooy investigation caaxaan baaxul. Ndeye Khady Meye. mooy borom salon masseuse bi. borom salon de couture bi. dafa aji Sarr. dafa daan door waar. di ñëw di masser madame la masseuse propriétaire mosu ko kon moom ci tey ba muy métier da doon da doon ci salle de massage bi. voilà fee fee lay dem bu guddee mu. kon fa muy liggéeyam mooy atelier tailleur ba kon. merci kon fii dafa doon rek xamaat. Hmm. dégg nga loolu waaw ñu remonté. Hmm. waa léegi ñu ne mbir mi yëpp boo ko dajalee. Hmm. seize heures de temps fukki waxtu ak juróom-benn. te gone gi bu dee dañu koo siif ba ñaari fan. Hmm. awraam yi mën nay tëf tëfi. tàng miti. dëgg loolu de. ñu ne lépp seize heures de temps la moins de vingt quatre heures.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 ala ala détail wér yaram gi loolu la rek. ah wér gu yaram bi préciser na ci 16 heures yooyu. waaw xale bi def na ci ay rapport sexuel wala def ko ci. defu ko ci déggoo li ñu la wax. non 16 euh, ci. ci 16 yooyu noonu 16 de durée. procédure bi parce que mun nga. mun nga non que dem nañ ba di mhm. mm-hmm. kon dañ faa séenul ak mu ne. nga bañ a séenul mais gynécologue mën na xool ndax yow ci yi ñu génn. kanam gi. kanam gi jonjowul benn yoon lu dul jonjo gu njëkk ngay firndeel ni amatul daw donc heure yooyu heure yi heure